ndeysaan mbokk yi waaye vite fait vite fait daan na sàkkal jël bu rëy rëy combat bu gaaw vite fait c'est bien daan na sàkkal jël bu gaaw jël bu rëy rëy moom vite fait la nit fee moo daan sàkkal journée ay saan supporter nit fee yaa ngi noonu moom nit fee moo daan sàkkal jël di gërëm ñëpp dañ daw ñaawu daw xool billaahi wallaahi làmb ji ñaabu ndaw laa jëm làmb ji entraînement dama am mbag barke Serigne Touba dañ ma jox samay morom ma bëre ak ñoom ma mën a joxe sama morom du ma bëre